maa ngi tudd Nakhla Tine euh, président mouvement APIS APIS maanaam agir pour l'intérêt supérieur du Sénégal. waa lu ko waral du lenn budul euh, ñun dañoo bokk benn bokk yaakaar àndoon ak docteur Serigne Gueye Diop ba fal ko maire Sandiara man mii di wax ak yéen di conseiller di président commission euh, président nag ne dootul doon candidat. docteur Serigne Gueye Diop ñu xelaloon ko nee ko comme président nee na dootul doon candidat baax na nga bokk ci candidat yi ndax nga bokk ci équipe ba nga xam ne ëllëg bu ñu gañee ñoom ñooy yore Sénégal mu ne loolu de lu baax la mais bu ñu demee ba ci biir mu indee ne yeneen tànk ne day créer benn parti politique gi yeneen tànk ne du déglu lu président euh, xaarul président day demal boppam comme daa beddeeku nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk Benno Bokk Yaakaar aussi dañoo fas yéene aussi beddeeku mais du ñu yem ci beddeeku ñoo ne suñu moomeel ñun suñu yëf ñun nañu ko delloo muy mairie ba comme nee na delloo na président de la république ministre conseiller mairie ba nag nañu ko delloo ci njekk bu ko delloowul ci njëkk nag ndongo njaay boo ko joxul ndongo njaay indi foqar ci ca la ñu jëm laajuñu dara nag président de la bu dul nu mu defal Kolda mu defal ñu ko Kolda Mame booy Diao candidat la jël na directeur général LONASE nommé ko muy doomu Kolda Sandiara am na ay cadres yoo xam ne tey mën nañoo taxaw pour am ay responsabilité ci biir état bi na ko def ndax itam kuy xeex dangay xaar jaajëf jaajëfu président bi nag foofu naa foofu la war a tàmbalee. ñu ngi ñaan aussi le candidat Amadou Ba mu gestu Sandiara parce que euh, fi nga xam ne dafa am candidat dafa am euh, loo xam ne spécialement dañ ko war a gérer noonu. waa traitement spécial lañu ñu war a am. kon donc traitement boobu la ñu laaj laaj ñu leneen ñun am nañu armée yu ñu mën a xeexee xam nañ ne tey bu ñu jàkkaarloo moom duñ koy gañe te comme ñoom bëgg nañ ñu gañe Serigne Gueye Diop ñun mën nañ ko gañe Benno Bokk Yaakaar tasul ñu nga fa ñu ngi taxaw APR am na ñoo xam ne ñu nga taxaw donc ñun pare nañu pour xeex ak moom foqar ci mairie ba bu pare gañe ko ci élection yi di ñëw non mënta majoritaire fu mu ne nii ndax ñun bu ñu génnee ñun conseil yi nga xam ne ànduñoo ak moom bu ñu génnee ñi nga xam ne ñoo ko contrôle démb ak barki demb te contre koy te ba léegi dañ koy contre ñooñu bu ñu boolee suñu suñuy say def ko benn parce que ñoom ñëpp benn bokk yaakaar yaakaar ne Serigne Gueye Diop day daanu te du daanu ndànk dama ne ña nga xam ne da leen a dafay ànd ak ñoom man na leen a yóbbu mais pale leen di yóbbu man te génn kër balaloo heureusement kër balaloo mënu faa weesu loolu laa bëgg ni ñaxam lu ñuy def c'est très simple ay conseillers lañu lu ñu bëgg mooy Benno Bokk Yaakaar parti APR accompagner ñu bu ñu accompagner xam nañu fu ñu mën a jaar bu nangu mairie ba parce que nag mënta delloo ministre conseil bind président ne démissionné naa parce que damay nekk candidat mais ñun itam nañu bind ne ñun démissionné naa comme damay nekk candidat ci beneen bannière démissionné naa ca mairie ba nekkatuma maire am na ñeneen ñu mën a nekk maire ñu nga foofu conseiller man koo doxal looloo fi ne pare nañ pour loolu. Amadou Ba daal c'est le maire choix président def na ko dafa fekk bu nekk ci suñuy xol bu pare man Amadou Ba personnellement dama koo jàpp man. pour feu Pierre Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon secrétaire général ministère de l' économie ancien directeur général de la planification et des politiques économiques ki nga xam ne man mooy sama lépp te kooku tey bu fa woon day plongé comme ni Amadou Ba nekkee fii dafa ma ne woon Amadou Ba bu plongé ci politique rek ma plongé kon donc pour sa mémoire man Amadou Ba dama koy jàppal jàppale ba ba xëy dee. Serigne Gueye Diop déggoo li ma xanaa def leen investigation ou après yéen ay ay ay journaliste ngeen koy gagné Sandiara. ñun ñi nga xam ne ànduñoo ñoog moom bu ñu bool bu ñu booloo nañu Benno Bokk Yaakaar organisé nañu président de la république organisé ñu gagné Serigne Gueye Diop au la mais bu gën a yomb gagné booboo gën a yomb fu mu ne nii lu leer laa la bëggee.